أن يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ëttu Maodo TV yéen a ngi ci les 3 minutes daal xaaj Abdou Fat ñu ngi borom Taïba diiru weeru koor gi incha allah yal nañu yàlla may ñu mottali ko ak jàmm ñu ñëwoon leen ci tawba muy sunu tabaarakallahu deuxième thème. mbokk yi gis nga wax si fi mu mujj ak sunu borom subhanahu wa taala bi mu tuubee ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yàlla nekk julit bu baax dellu ginnaaw ci lépp la mu nekkoon yàlla daf ko jéggal moo tax yàlla ni allazina yubadilullahu sayiatim xasanatin ya ñaaw ya ñu defoon sax dama koy soppi def ko muy yiw fa tabaarakallahu waaye nga xoole indi bi nga xam ne moom moo jëloon ndigal jox ko wax si ni ko na ray amza xoola indi boobu rey bu ñaaw bi mu rey Hamza fa tabaarakallaahu nga xam ni bi mu ko sànnee xeej bi mu daanu sukuraat génn àddina dafa ñëw jël jaaseem xotti dënn bi moom ind bi mu xottiloo dënn bi mu jël res bi nga xam ni moo nekk ci biir Hamza mu yëy res bi ñëw ba fekk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog mu buusu ko deret ji waaye bi mu ko buusoo ci mbaaxu yàlla ak yërmaneem ak dogalam am na lu rëcci jàll ci biir ind maanaam bi mu ko buusoo lépp waddul ci suuf am na lu am na lu rëcci dugg ci biiram ci intérieur am yàlla ca la sukkandikoo ni kii deretam du dem safara ca la ko yàlla jéggale indi boobu mujj na tuub dugg ci lislaam tabaarakallahu kon yàlla mbokk yi su ne tëjul ay buntam mom yàlla tëjul ay buntam kon nak yow doomu adama bi bul déglu sa moroomu jam ak lo meuna def xamal ni yàlla nga ko sekkal parce que yàlla du bolé ak kenn mu lay atte doomu adama bi yéenewul moroomu doomu adamam jam doomu adama bi fay soxore moroomu doomu adamam kon yàlla du jël nit ni la attel nit yàlla def lol dedet yàlla moy attel bopum ëllëg yowmal khiyamati akbar yàlla nañu yàlla atte ci yërmandeem moo tax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mbokk yi euh, man taaba qabla mawtihi bi nisfi yawmin taaba allahu alayhi su fekkee jour bi ngay génn àddina euh, nga xam ne journée bi vingt quatre heures la yow tuub nga dellu ci yàlla ci douze heures de temps yi la dese ci addina subhaanahu wa taala ne pare naa man yàlla pour jéggal la mu ni déedéet yamu ca de man taaba mbokk yi xabla mawtihi su fekkee ni defa dafa tuub li des ci dundam donte ñaari jéego la mu tuub ngir yàlla jéggal ko sunu borom nee na pare naa pour jéggal la su ko defee mbokku téléspectateur ëttu Maodo TV li leen doon ñaan rek lañ leen di ñaanaat ndax yéenay dooleel télé bi mooy partager leen vidéo yi mbokk jullit yi jaruñoo ko baliu ani walaw bi aaya la sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon kon ci beneen numéro incha allah asalaamualeykum ورحمة الله وبركاته الفضل أجزل والمواهب أوسع